jërë ngeen jëf mbokki internet yi Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafet lu nu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak bitim réew tey seen acte du jour dañ koy dore ak élimination bu Bayern de Munich Bayern bu Sadio Mané ñoom nag daal dinañuy ñàkk seen quart de finale bi doxoon seen diggante ak ñii di Manchester City gannaaw nag match aller ba ak ñetti bal ca dara ya nga xamante ne ñii di Manchester City moo leen ko dóoroon niki tey nag na amoon yaakaar rek daal di génn ci bile match waaye nag mu mel ni ab nul lañ ca daal di jëlee loolu nag daal di tax ba daal di leen éliminer rek ci champion kii di doomu Sénégal ba nag di Sadio Mané moom moo dal di sax provoqué bii les penalty yi nga xamante ne moom moo jox bii rek ñii di Bayern de Munich waaye teewul ñoom dañoo daal di ñàkk rek ñu daal di témbo def ku ci nekk benn bal daal di koy dugal sa morom Sadio Mané nag ak retouram daal di jël place su ka nga xamante ne moom moo di Leroy Sané image yi moom ngeen di gis noonu rek ñoom ñaar gannaaw différent yi nga xamante ne daal nañ koy am rek mu mel ni jàmm daal di nay dellusiwaat rek ba ñoom. ñaar daal di nekkaat ci jàmm ah, niki tey sax moom Sadio Mané moom moo daal di remplacer rek ka nga xamante ne ah, moom moo di Leroy Sané teewul ba mu duggee rek ah, moom Sadio maane daal di wane boppam bu baax a baax rek daal di provoqué bii les penalty nga xamante ne moom moo jox bi ñii di na de Munich bu ñu jógee ci loolu ñu wax ca cant yi amoon ci Medinatu Salaam loolu nag ca 17 avril ba mu nekk cant yu Serigne Saliou Thioune kii di soxna Aïda nag moom tamit amoon na fa ab ndaje ñoom ñëpp rek di màggal la nga xamante ne moom moo di 17 avril dajek Serigne Saliou ak Cheikh Béthio Thioune ci loolu nag ku ca nekk rek ca fànn ga ak na nga koy amale mu mel nag moom Serigne Saliou Thioune ak ki nga xamante ne moom moo di. di Seydina Thioune gannaaw yenn ci ay différents yo xamante ne ñu ca nekk ñu nga koy wax rek di wax sax naan ñoom ñaar ba moyul sax neexuwuñu dara gannaaw ñu daal di ay laaj nag nga xamante ne moom moo di Bijou Ngoné bu 2S moom daal di nay préféré rek neutre ci bile mbir wax rek ne ñoom dañuy daal di rester rek ay taalibe waaye nag du ñu dugg rek ci diggante ñaar ñoo xamante ni sax daanaka ñoom ñoo daal di bokk waaye ca beneen fànn ga gis nañu soxna ay daak na mu amale rek bile bile di 17 avril daal di jot rek addiya bu toll ci deux cent cinquante million ci sunu koppar loolu nag ay taalibeem daal di ko koy jébbal rek ci ab malet lépp rek wane waat seen cofeel ci kii di soxna Aida. international bi di Cheikhou Kouyaté daal dinay amal ma foofa ca diwaanu Londres loolu nag ñaareelub jabaram di Muna daal di am ab doom ñoom nag ñu daal di koy baptiser rek foofa ca diwaanu Londres mu nekk ngénte boo xamante ni rek daal nañ koy amal en toute discrétion image yi moom ngeen di gis noonu rek habillé en blanc couple Kouyaté daal di rek fësal la nga xamante ne moom moo di les photos ngénte muy kii di Cheikhou Kouyaté ak. ak Muna nekk ñaareelu jabaram Dame Sène daal dinay clash célébrité yi nga xamante ne ñu ngay rek dem ca diwaanu Makka te bu ñu ñibbisee di wéy rek nekk ca la ñu nekkoon moom nag mu jàpp ne sax ne mbir moomu xamul lan mooy explication ba rek gannaaw ba nga xamante ne daal nay remarqué ne muy tiktokeur wala artiste wala ku mën di doon rek la ñu jëlal mooy dem umra ji ca diwaanu Makka partage ay photo ci réseaux sociaux si rek duñu tuub dañuy wëy rek nekk ci la nga xamante ne moom la ñu nekkoon moom Dame Sène nag muy sampa plage rek di wax ne sax ne mënul comprendre mi Boy mu nga ca diwaanu Nimzat moom ak soxnaam ñoom ñaar la ñuy gis noonu ñu daal di fay amal seen ziar loolu nag daal di nekk ziar bu am solo moom Boy Niang nag ànd ak ka nga xamante ne moom moo di soxnaam rek gis ngeen photo yi nga xamante ne dal nañ koy fësal ci li nga xamante ne moom moo di seen compte ah, muy ziar ba ñu demoon rek foofa ca diwaanu Nimzat wax ci leneen Adja Diallo moom la ñuy gis noonu rek la belle Adja ak photo yi nga xamante ne daal na koy publier rek ci li nga xamante ne moom moo di comptam ah, ñi di followers am ñi nag daal di apprécier bu baax a baax rek ah, bii li beauté naturelle nga xamante ne mu nga koy dégager rek moom ex mannequin bi di Adja Diallo beneen beauté naturelle muy Sara Cissé journaliste foofa ca télévision Futur Média gis nañu. nañu quartier général ak photo ya nga xamante ne daal dina koy partagé ci ay comptes rek moom journaliste bi di voix ant bi di Selbé Ndom daal dinay àddu rek ci présidentielle yu deux mille vingt quatre waaye nag ba mu jógee ci loolu wax na tamit ci coowal Sonko ak kii di ma Mbaye Niang mu nekk loo xamante ni moom daal dina cay andi rek xalaatam rawatina la nga xamante ni sax daal dinañ koy gis jamono ji muy ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Ahmed Cissé na mu adhéré rek ci ONG bi di Jamra moom nag Selbé Ndom àndu ca benn yoon ndax kat dafa jàpp. jàpp ne recrue boobu nga xamante ne kii di Mame Makhtar Gueye daal na koy def tegu ko fenn te boo moyul sax kii di Cheikh Ahmed Cissé dina daaneel rek ONG bi di Jamra ñagas gannaaw émission yi nga xamante ne Fou Malade mu nga koy def rek after di ci invité sax ay artiste moom nag daal nay dellusiwaat rek ci dundam ak la nga xamante ni sax jot na koo dund ak sax yenn ci ay stupéfiant yoo xamante ni daan na koo jëfandikoo bokk na ci alcool ba nga xamante ne moom daal nay taxaw rek ca télé ba di wax sax naan daanul woon toog simili eh, te jëfandikoowu ko loolu nag daal di demoon rek ba dal di eh, accro ci moom rek moom ñagas waaye nag muy dellusiwaat rek ci li ni a émission ba nga xamante ne mu nga ci àndoon ak kii di Fou di Ndiogou Afia gannaaw mu daal di def laylatul xadem ba noppi rek mel ni dafa daal di génn gis ñu daal di tojate vitre otom jël bagage yi nga xamante ne moom moo ca nekkoon muy koppar ak i pièces am loolu nag daal di métti bu baax a baax ki nga xamante a moom moo di Ndiogou Afy gannaaw loolu nga xamante ni a daal nañ koy def yàq te otom jël lépp loo ca neewoon waaye nag moom la ko ca soxal bokk na ca pièces yi nga xamante ni rek moom lay sàkku ñu delloo si waatal ko ko mu nekk lu métti loo xamante ni dal na ci kawam rek gannaaw ñu daal di tojate otom jël ay pièces am wax ci Queen Biz mu ngay attaqué Cheikh Omar Talla nekk chroniqueur ca Zik FM gannaaw nag kaddu kàddu ya mu yëkkati woon rek mu mel ni ah, métti na a ah, kii di a ah, Biz waral nag ba moom mu daal di def rek ni métti na bu baax a baax Queen Biz rek dal ci kaw chroniqueur bi nga xamante ne moom moo di Cheikh Omar Talla Pape Sidi Fall ak témoignage yu rafet ya nga xamante ne daal dina koy def rek ci Abano Stress loolu nag gannaaw ba Aba ak Galeno Stress tim ba sax ñu daal daal di dajaloo rek jël ay don yóbbu ko ca camp pénal mu daal di nekk geste bu rafet boo xamante ni ku ca nekk rek mu nga ko apprécier moom Pape Sidi Fall a muy wax rek naan kii yi rafet ak témoignage yoo xamante ne daal na koy def à l'endroit de Aba a ca Pape Sidi Fall moom sax la ñuy des ba tey a moom ak Astou Dione ak Khadija Patra gannaaw a ñuy soulever rek la nga xamante ne moom moo di bi yëngal jamono euh, fan yi yëpp bokk na euh, ci euh, groupe Top Cas ya nga xamante ni nag daanaka ñoom ñooy def buzz rek waral ñii di cybercriminalité daal di cay rek teg loxo ñu bëri bokk na ca ka nga xamante ne moom moo di Thioro Mandela nekk journaliste ca Walf moom nag daal nañ koy arrêté rek mu daal di reconnaître sax ne bokk na ci groupe yooyu nga xamante ni moom moo di Top Cas gannaaw a ñu daal di koy yóbboo rek entendre ko ak sax yenn ci ay jafe-jafe rek jëm ci wàllu sant digganteem waral nag ñu daal di koy bàyyi woon sax moom ci fàttali a mel ni dafa daal nekk rek en état de grossesse sept mois waral nag ba audition ba sax dañ ko daal di mujj dagg rek ndax état de santé moo ko mayatul mu continuer bii les auditions moom Thioro Mandela nag ci fàttali journaliste ko ca membre ya nga xamante ne ko duppee topp ka si toondu daal di nañ koy bàyyi viol yoo xamante ne teg woon ci kawam rek mu mel ni jamono ji nag moom daal a jotaat ci libertéem rek moom Sitor Ndour diwaanu Mbour la ñu jëm accident bu métti moom moo daal di am rek ci route nationale ba bokk na rek ci hauteur juuti bu bees loolu nag gannaaw ba nga xamante ni ab moom moo daal di dal rek ci véhicule particulier daal di def sept blessés waaye nag ñeent ya ñu nga ca état bu critique lool mu nekk accident bu métti diwaanu Mbour jeexale tàgg tàggat yaram wax ci club bu Ismaïla Sarr bi di Watford ñoom nag championship gannaaw ba nga xamante ne ñoom ñu nga daje woon rek ak Cardiff mu daal leen dóor ñetti bal na ca la mu mën waaye nag teewul daal nañuy ñàkk rek seen match ba nga xamante ne moom moo doxoon seen diggante ak Cardiff mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon seen actu jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talal cloche notification bañ a dara suñu information jërë ngeen jëf.